lii di tëjum frontière yi ci bii lépp période jàngoroy coronavirus ah, doon na ab gàllankoor ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeur yi ba tax na ñooñee dañuy daal di wiiri jaarale ko par ngir mën a wutali ci yenn gox yu nekk fii ci diwaanu Sénégal mu doon mbir mi nga xamante ne nag ñooñee ñoo ngi koy naqarlu bu baax a baax. non mbir mi moom métti na trop parce que client ci boppam ñoom ñi nga yeb ñooy njëkk sonn parce que bi dafa sori te li mais client boo gis fii ci garage bi mu ngi jaar par tam par kii par Gambie par def étape te suñ demee Gambie la ñuy jaar ci frontière la ñuy jaar jaar ci police yi def seen formalité dem te ñu ne dañoo tëj frontière yi su fekkee nag oto ñoo kore naa nit ñi wala nit ñee kore naan ñu wax ñu. li nga xamante ne nag moom mooy wiiri bi daanaka doonul mbir mu yomb ci ñi nga xamante ne dañuy bàyyeekoo Ziguinchor nar a wutali feneen te it waxatuñu boobu lépp yokku ci euh, prix du transport. ah métti na trop moom gënalul kenn gënalul kenn ñun ñëpp bu ñu sañoon ñu jaar fu ñu doon yàgg jaar temps kii Gàmbi bi mais comme situation oblige léegi dañuy kii rek def ak moom. fay 17000 même sac bu ndaw sax boo ko yoree ñu bëgg la fayloo métti na trop il est temps que ñiy chargé wu transport bi ñu wax si. yoon bi métti na trop parce que woon ak léegi du benn maintenant léegi yoon bi plus de 400 kilomètres xam nga. paas bi tamit dafa seex des fois da ngay fanaan si yoon bi deux fois par rapport oto yi depuis démb si guddi maa ngi fii ñu ne ma oto bi day départ guddi maa ngi fii ba heure bi fii laa fanaan taw bi fii la ma fekk vraiment lu ñuy dund si yoon dafa métti trop quoi. waaw cette place moom moo gën a seer nag parce que boo am te 17000 dooleem. ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy chauffeuru bus yi daanaka fi mu toll nii gisatuñu seen bopp ci li nga xamante ne moom la ñu doon am laata jàngoro bi di coronavirus daal di agsi frontière yi ñoo doon dimbali mais frontière yëpp a tëj frontière yi ñoo daan di client yi frontière Bissau bi ci lañ daan jëlee client yi mais client amatul yoon bi dafa sori benn boole ji il faut ñu liggéey ay boromi famille lan mun ñoo toog frontière yi tëj moo laal bii si ay quarante personnes lañ fi jëlee gën ngaa bari quarante lañ fi jëlee trente oto bu daan def soixante dix nga fi jëlee quarante. nga dem ak moom ci yoon bi jaar ak moom ba Tamba. li di ubbite frontière yi mu doon mbir mi nga xamante ne nag moo soxal ñii di chauffeur yi ak client yi ba tax na danañ continuer di jaar par Gambie ngir wutali fi nga xamante ne fa la ñu bëgg a jëm laata seeni jafe-jafe yi ñu leen koy saafaral.